bon man personnellement suivre naa actualité terrain bi comme tout citoyen médinois man personnellement man du ma maire man du ma Bamba Fall Bamba Fall c'est le maire de la Médina du ma conseiller municipal te euh, Dumba aussi Thierno Seydi promoteur terrain bi mais donc suñ ma ci tuddee mais vraiment man xaw ma ñu tudd ma ci parce que j'estime que terrain bi bi mu amee maire bi ak conseil municipal yi ak partenaire public bi public privé bi ah ñoom ñoom ñoom ñoo signé seen ay kayit mais donc suñu waxee Paco Jackson man daf may jaaxal man aw ma ci euh, intervenir wu ma benn yoon ci affaire terrain bi man lenn la xamoon euh, le maire Bamba Fall sama xarit la nëbbu tuuma comme ni Cheikh Tidiane Ba nekkee sama xarit comprendre on a de très bonnes relations mais bi mu bëggee defar terrain euh, jaraaf daf ma woo ni ma dama bëgg defar terrain jaraaf mais sous préfet bi apparemment mi ngi am ay affaire yu muy def ci suuf pour affaire bañ am maa ko sooy def sa conférence de presse nga invité ma soo ma invité ni naa wane ni que terrain bi dafa war a am parce que mënuma depuis ban année man ma joué cadet si suuf di dellu si sama équipe du jeu ASC Jàppo ñuy entraîné ci suuf Médina dafa war am terrain comprendre ñu xeex ko mais jour boobu laa gëj a xam li xew ci terrain bi ba benn jour mu woowaat ma ni ma président yi dañu war a gisee pour affaire terrain bi bi ñëwee mi ne ñu dañuy defar terrain bi mais chaque ASC dinañ ko jox un million xam nga avant waa ji di dugg ci commencer exploitation dinañu jox un million expliquer daal ba ñëpp d'accord mais fa la yem man gisuma contrat xaw ma contrat xaw ma lu ñu signé ak lu ñu signé wul donc man suñu nee Paco Jackson xëy na je sais pas xëy na sama tur moo neex ci làmmiñu nit ñi mais man soo bëggee dégg-dégg non gisuma terrain gisuma këyit gisuma terrain jaraaf gëj naa fa depuis bi jàppoo toogee contre PT si lañ ma gëj a gis terrain jaraaf comprendre demi finale ba léegi teguma fa tànk xaw ma sax ndax terrain bi dafa nañ ko war a defaruñ xaw ma ci dara dafa mel ni bàmmeelu Bob Marley xam nga gisuma ko mooy terrain école mili xaw ma la fa xew man dama jàng école quand même xam nga jàng xam nga terminal dem bak affaire yu demee noonu man du ma il est très comprendre naka laay mën a d'accord ci loo nga xam ne gisuma ko gisuma kayit rek ma war rek ma d'accord mais dafe naa ni sooy d'accord waa conseil municipaux yi ñoo war a d'accord ak maire bi ak partenaire bi mais du Paco Jackson mu ci ñun xam nga lan mooy suñu rôle ñun daf ñu woo pour subvention subventionner ñu chaque ASC am un million bu muy defaroo ci nawetaan yi mais loolu la mais man dañ ma jox kayit ma signé au nom des ASC joxuñ ma kayit te suñ ma joxoon kayit mais ni naa xool lan mooy ci lan moo nekk ci kayit bi saa waay man dama juddoo dakaar màggeen Dakaru dem France dëkk fa vingt ans dellu si man du ma aliéné du ma dof dof du yegg niveau bi ma yegg dañu waxante dëgg corona bi amee mais daf ñu woo ni il faut ñu jàppale ko président ASC yi pour transmettre message bi sensibiliser nit ñi pour ñu xeex corona à la Médina mais avec plaisir. Moi, je suis médinois. Man, je suis fier d'être un médinois. Man, nëbbatuwuma man jàppoo la judo màggee kusum xam nga euh, dem à travers le monde pendant vingt ans France États-Unis fu ne xam nga mais nag du ma aliéné soo ma indilee kayit balaa ma koy signé damay xam lan na nekk ci kayit bi. non début bi mbas mi lañ doon xeex ñu def liggéey bu mucc ayib maire subventionné ñu ñu dem dugg biir jàppoo. comme ñi gars yi duggee kusum ñeneen ñi dugg jekko ñeneen ñi dugg damers ñu xeex mbas mi te gis nañ mi mbas mi dafu fi sax yenn dégâts yi la Médina après ñu ne période boobu du période politique man ma def benn sortie ma ni dañ nekk ci période mbas su jàllee ku nekk mën ngaa politique mais tant que mbas bi jàllul ku fi laal maire bi wala nga wax fi politique ni nañ dal sa kaw man maa génnoon daf sortie bi et je l'assume parce que période du mbas lañ nekkoon nekkuñu woon ci ay période politique man lu ma wax mën naa ci dellu si ba ñu defaat benn collectif daf le président des ASC man ñu nommé ma président président Kousum nekk vice mu nekk président d'honneur euh, Pape Alioune président Djekko nekk coordonnateur euh, bi bi meng bu Ngaraf euh, nekk je sais pas porte-parole xaw ma daal en tout cas am mais dem nañ ba ci biir xam ne du sax du douze présidents yëpp fa onze présidents yëpp fa nekk parce que am na ñenn ñoo nga waa Damels am na ci ñu ma wax ni que ñoom seen président nekku ci après ma yëgaan ni bii du président Ngaraaf comprendre donc man je trouve que il faut ñu waxtaanaat parce que dafa am lenn loo nga xam ñu ñoo ko moom muy la Médina comprendre mais mënuñu dox ci ay kii nee na kee nee na dañu war a établir ku nekk sa rôle nga dox ko man su ngeen ñëwee laaj ma war ngeen ma mën a ñëw laaj parce que maay président ASC Jàppo du dëgg mais je parle au nom de la l'ASC Jàppo waxuma au nom de tous les présidents est-ce que comprendre mais au nom de la nom de l'ASC Jek euh, Jàppo man gisuma kayit wanuñu ma kayit signé wu ma kayit bi may koy teewee mooy jour bi mu ñuy ñëw di ñu woon maquette terrain jaraf encore une fois non man li ma jàpp man ci gàttal mooy ne que un projet pour que mu tenir la route il faut que les conseils municipaux signent maire bi approuvé ah partenaire bi approuvé le reste préfecture daf délibération Paco Jackson non mais yoonam newu ci man sama yoon xam ci lan la ne je suis un médinois je suis pour l'intérêt de la Médina man sama intérêt sax ça importe peu xam nga li am solo mooy askan bi du man man gisuma këyit signé wuma këyit maire wan na ma projet ma approuvé projet bi en tant que président d'ASC ma ni projet bi su paree nii na rafet mais gisuma kayit si wu ma kayit donc rien ne m'engage c'est la parole des autres contrement ma parole mais ñoom ay médinois la ñu suñ gisee suñ gisee lu leen arrangé wul mais am nañ droit ni lii arrangé wu leen ñu dem fa mbaxane nekkee benn ñu régler problème bi man awma ci awma ci lu may yàq médinois lañu seen mètre carré ku fi ne fii Médine nga juddoo am fi sa mètre carré soo gisee li nga xam ne arrangé wu la mais nga défendre ko c'est tout à fait logique man dama jàpp ni sincèrement terrain jaraaf ñu privatiser ko ah ce n'est pas le problème xam nga lu lan mooy problème que waa Médina gis seen bopp ci terrain jaraaf loolu mooy le problème mais du ñu privé tey man indi naa Mamadou Niang ak euh, astafurlah Fadiga pour mu pour ñu def business par rapport ak terrain bi mais d' accord wuñu ak Fadiga xëy na sans soutien nu Seydi la mais lan mooy terme contrat bi c' est ça donc léegi xam luy problème waxtaan ba juboo moo fi mën a am wala ñu dem ci yoon loolu rek fi mën a am waxtaan ba juboo renégocier les termes du contrat loolu rek moo mën a am parce que tamit tey la population médinoise xam nga population médinoise bi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy buum di buumi médina fii ku fi toog population bee la fi teg dañuy waxante dëgg léegi man benn appel laa leen mën a lancer man benn appel laa leen mën a lancer mooy ni que le président euh, le maire Bamba Fall il faut mu recevoir leen toog ak yéen waxtaan ak yéen ñu xool nan la ñuy renégocier les termes du contrat loolu rek mën a am waxtaan bu jubóo nga xam ne Médina ñu ñëpp ko bokk. tey suñu suñu exploité wul terrain bi mais ñun ñi nga xam ñooy équipe yi fay entraîner dañuy perte je suis obligé d'aller su nawetaan amee dem di loué ji ay terrain ay Dakar Sacré-Cœur comprendre donc li ma gis daal mooy collectif bi ñoom seen droit la ñu nekk Médina lañ juddoo fii la ñu màggee ñii kusum lañ dëkk ñii Dammers donc boole ci muy ay ASC yoo nga xam ne aussi dañu mag am doole am lu ñu def fii ci football au Sénégal kusum kenn du ko présenté Dammers waxi nopp donc il faut que ñu déglante loolu rek moo mën a am déglante trouver solution loolu rek mën a am parce que xëccoo bi a ŋaayoo bi réglewul dara mais moom mooy le maire de la Médina sa sa askan sa njaboot ñoo la soxla mais recevoir leen man su ma amee conseil bi ma koy jox te ni naa ko woo ni ko recevoir collectif bi nga waxtaan ak ñoom Médina ñun ñoo bokk nday ñoo bokk baay Médina population bi ah ñooy ñooy ñooy buum ñooy bumi parce que maire aussi su fi toogee population bee ko fi teg te j'estime que dafa war a recevoir euh, collectif bi waxtaan ak ñoom wan leen les termes du contrat mu jeex du dëgg ñu xam fu dëgg gi féete loolu la rek du leneen